Eh, ñu defoon ko ñu gis ne eh, ñu ci gën a bëgg mooy se c'est ñu def communion ñun ak euh, ak suñu suñu quartier bi yëpp au delà de quartier dañuy wax tout le département de waay donc ci loolu lañ ko defoon nag yàlla dogal eh, biñ ko defoon ñu génn si ak jàmm ren nag ñu gis ne ñu owaat pour mu gën a yaatu ñu xalaataan ko ren ñu def ko euh, fekk am na ci essence yu génn mais l'essentiel daal pour gën a communion nit ñi quoi. waaw bilan bi moom li ñu mën a wax mooy mun nañ ko jël ci phase yu nekk mais ñun.

xam ne li ci manqué eh, ñu ngi koy gis ba léegi te ci lañ teg suñu tànk ba léegi moo taxoon ñu duggoon ci élection yi xeex ci ba génn ci yàlla nag dimbale ñu ñu am ci résultat yi ñu ci am donc ci loolu lañu ñu la la ñu déparé waat waaw dañuy ànd ak ñoom wala déet d'après ñun bu ñu waxtaanee parce que ñun la ñu nekk ci mouvement boo xamante ne xañ na président bi yaatu na dënn lool ba nga xamante ne eh, lu mu jëloon mën nañ ko ci fekk si par collaboration bu dëgër.

Euh, euh, conviction yi duñ ben mais li amone solo ci ñun moy niko ko wax rek président doon ko wax kérok moy ndox buy fay lak kenn duko tan dañu jappone suñu combine jaxassone jaxasse bo xamné buñ fi nekk naan ki fi la bok kee la bok duñ ko fi jëlé mais bo boole won nañ suñu doolé xeex li ñu mën suñu responsabilité nañ ñu dégager ko ci. l'essentiel tegaat nañ leen fi ah ñu ngi leen di xool lenn daal lañu xam côté bo mun nañ ko ci wax moy li ñu defoon bee passé duñ ko défal tok ba élection jot fu nekk nga fay dugg di wax duñ ko def.

su que le maire qui est là à Wakhinane Nimzatt il indi financement un financement ay la si mais bu pour la commune de Wakhinane Nimzad, encore une fois nous avons dirigé la commune de Wakhinane Nimzat day dirigée. la commune de Wakhinane nag c'est pour la jeunesse de pour nga un bon maire bul ku que ak bokkul nous avons côté bu doxul côté waaw Mara moom li ñu mën a wax ci Mara d'abord dinañ ko remercier parce que xam nga li def c'est pas évident waaw li def c'est pas évident parce que politique dafa doy waar politique nit ñi dañ ko bonal ba nga xamante d'abord booy wax ak ci politicien sax lu may faral di wax dañ lay génnal ay chiffres di jàngul politique politique kenn du ko jàng amul ku dem ci benn école ba ñu indil diplôme politique jox la politique mooy nga xool li nga xam baaxul ci sa askan nga xamante ne lii baaxul te ñun ñoo joxe baat ñu taxaw téye suñu baat jox ko ku ne donc Mara Ndiaye bu nekk suñu rak

dinañ ko bàyyi mu dem bu fekkee ne loo warul dem nag ñun ñii ñëpp dinañ xool koo xamante ne ah, ñu am ci confiance ñuy pour mun fi changer li fi ne. li jëm ci euh, euh, élection yëpp ñu parce que xam tax ñu ñu la mairie comme da nga élection législative la mairie cette fois la mairie ne élection législative pour pour pour assemblée. et ñu ban député

parce que Guédiawaye dafa toll fo xamante ne léegi ku ñu war a da ngay nek ko xamante mom mom mom mom wara nek a sa place am côté bobu lañ taxawé waaw jangal xam nga li ñuy wax moy bo gisé ñu taxaw fi dafa parce ñu am jamm dañu am jamm kon damay àpp nit ki quel que soit bor bo mëna nek nekk nañu ñaan jamm ci réew mi han ah, nañu jamm ci réew mi nit nak dañuy wax nan amna pratique yo xam bu ñu amaat jëm ci kaw nit ku nek mëna xol noy défendre sa bopp.